dal leen ak jàmm ci seen focus Ramadan. tey nag ñuy waxtaanee njëriñal zikr ci jamonoy weeru koor dañu ci ànd ak imam Cheikh Tidiane Niang zikr moom yàllaa ko dugale fadkurullaha zikran kathiran wa sabbihuhu bukratan wa asir gis nga zikr yàlla waxoon rek nañ ko def ci koor jamono bépp da nga war waxtu woo amee jot rek zikral parce que zikr même aqimi salata li zikri julli ki ngay julli pour fàttali ko yàlla la jaamu yàlla la goo xam ne yàlla moo ko digale pour tout le temps nga di ko def zikr du jeex parce que asmaullahi subhanallah dégg nga de allahumma salli ala iska yàlla ko recommandé loo ci mën nga di ko def am na ñoo xam dañ lay wax ni lim sàngam waaye ni mu gën a bare rek baax parce que noo mu gën a bare yool gi di gën a bare jamono yëpp la rawatina ak nag woor woor rawatina weeru koor wax naa ko sànq ci conférence waxtaan bi li nga daan zikkër ci waxtu weeru koor boo ko wooree boo ko zikkëree ci weeru koor dañ la koy fulal julli yi ngay julli sax ci weeru koor dañ la koy fulal jëfi jo jëfi weeru koor mu ëpp doole yeneen jëf yi kon loo mën rek ci jaamu yàlla jàng alquran zikkar def mbokk yi fii la ñu yam ak yéen si seen focus ramadan di jaajëfal bu baax imaam Cheikh Tidiane Niang di leen jox rendez-vous ba beneen yoon di leen wax tamit juma mubarak